teewee naa salaatal maghribi julli timis fi baadi masaajidil maghribi ci lenn ci jàkkaay soxu teewee naa julli timis ci lenn ci jàkkaay soxu maanaam benn jàkka ci jàkkaay soxu bi daa teewee julli timis مغرب نك موي دك يي نيك سي قرف بي يب رك فلما اديتها بما جوخه جولي غوغ بفضلها تي اك متام وشفعتها متفلق بنفلها تي نافلة بغا خمنا جولي نافلة تي بام مت متك تي نافلة اخذت تي لا جس طرفي سمو بت رفقة اي عند نور يو خمنه xadin tabazu beru nañ maanaam dajaloo nañ naaxiyatan ci ab wàll wamtaazu ñu ràññeeku safwatan di woy way sell saafiyatan ñu set wecc nee na ma jullee farata ga teg si naafila ci laa xoolab daal di gis ay àndoor yoo xam ne ñi ñu ngi beru ci ab côté boo leen xoolee rek xam ne ay nit ñu tànneef lañ yu sell wala nga ne moom taazu ñu ràññeeku safwatan di tànneef saafiyatan yu sell boo leen xoolee rek xam ne ay kilifa lañ ñoom mbooloo moom wum ñoom it taataw na ñu ngi jokkalante kasal munafasati kaasu waxtaan maanaam ñu ngi waxtaan ku nekk boo waxee rek jox sa morom mu wax comme ñuy naan wa yaqtadixuuna na ngay koccal zinaadal mu baaxasati doju beewu gëstu koccal mooy taal doju beew mooy doju yi nga xam ne boo ko taaree dafay takk maanaam mbooloo lañ yoo xam ne ñu ngi génne ay xam-xam ak ay sew-sew ci seeni gëstu boo toogee ñoom rek ñu génne lay xam-xam faraxibtu ma xemam fi muhaadasatihim ci waxtaan ak ñoom lu tax mu bëgg waxtaan ak ñoom li kalimatin ngir baat tustafaadu boo xam ne dañ ko jariñoo yow adabin wala xam-xamu adab yustazaadu boo xam ne danañ ko yokk ci laa xamam nag waxtaan ak ñoom ngir dolleeku rek naa fa jëlee lu ma dolleekoo ci xam-xam wala ci wàllu adab fa saaytu ma dox ilayhim jëm si ñoom saayal mutatafili comme dox ak aji xaaraan mooy kuy ñëw ci ak ñam te xowuñ ko ca sàngen muti tafili comme doxal ay xaaranaal yim seen kaw ci laa dem rek dugg seen biir te kenn woowut ma comme ni koy xaarankat yi defee ci ñam yi wa qultu ma wax la moom ñee leen ataqbaluna ndax nangu ngeen nazilan gan yatlubu mu ngi sàkku jënal asmaari kotti teefu ngoom laan dégg nga laa jëniya simaar yi waaye waxuma way xee si ñor yi ndax soxla ngeen gën goo xam ne lim jariñoo ci waxtaani rek lay wut waaye wutut meññet yi nga xam ni bañ ñoree yàggut maanaam wutut njariñ lu may waxtaan ak wa mu muy sàkku mu laxal xiwaar yi way neexi waqante yi laa malxaaul xuwaar yi waaye waxuma yàpp jeginu doomi naaga ya xuwaar mooy doomi gëlëm malxaaul nag mooy yàpp jegeñ ba mooy li gën a ci yàpp wa maanaam ak lekk wala ak xewlu àdduna taxut koo ñëw ci yéen waaye waxtaan ak yéen rek moo ko tax a ñëw faxallu ñu fecc ilayya jëm ci man alxuba lëkkaaya lëkkaay toogaay woon boo xam ne laa jël mm, dégg nga kaala takk ko ca gannaaw ga ak ci xel ya wala nga jël sa loxo teg ko ci ron xoom yi noonu bank tànk yi façon toogaay boobu moo di lëkkaay maanaam ñu yaatal ma rek la bëgg wax mooy ñu fekk ci seen lëkkaay ga wa qaalu ñu ne ma marxaban ñu ngi lay yaatal marxaban ñu ngi lay yaatal fa lam ajlis tooguma illaa lam xata baariqin lu may géndeekook aji melqati xaatifin bi aji këf aw nuxbata taayirin wala cobak picc xaayifin bi aji ragal maanaam digg bu gat rek laa lu mel ni melax boo xam ni dafa melxati dem wala picc mu ragal moomu dugal e, dégg nga gémmiñam ga ci ndox pour naan ni gaawe gaawee xataa xasiyana ba mu dikkal ñu jawaabun daggaakoonu àll ya wala atiqi nekk na ci mbaggam ma jiraabun ak muus ak mbuus ba ma demee ci mbooloo mi daal toog rek ah ci laa gis benn waay goo xam ne ku ko xool xam ne tukkikat la ma ngi xenu am mbuus ca doq ga fa xiyaanaa mu nuyu ñu bi kalimateen bil kalimateen ci ñaari baat wa xiyaa mu nuyu al masjida jàkk ja bi taslimateen ci ñaari sëlmal mu nuyu ñu wax ñu asalaamaaleykum ñaari baat wi lañu nuyoo dem julli ñaari ràkk ci jàkk ja muy nuyoo jàkk ja waa ji ba def su ma qaala topp mooy yaa ulil albaabi ay borom xel yi wal fadli ak ngëneel allubaabi bi aji sell yéen ñi am xel yore ngëneel lu sell ama taalamuuna kanaa xamu leen am na anfasal kurbaati ne li gën a seer ci jaamu yàlla yi tanfiisul qurubaati mooy wuñ yi njàqare yi jaamu yàlla yi li ci gën a seer mooy fexe ba di nekk ci njàqare nga génn ko ci wa am tana asbaabi najaati li gën a dëgër ci buum yi mucc muwaasaatu zawil xaajaati mooy dimbale borom aajo ya maanaam dimbale ñu ñàkk ña way nii naka mënoo mën a xàll maa ngi gën ci ki nga xam ne wàccee na ma saaxatakum seen dingare bi mooy seen ëtt bi wa ataaha mu dogal lii ma istimaaxatakum laaj leen maanaam di leen ñaan la sharidu mahallin kuñ daq laa ci barab xaasin bi aji sori wa baridu sibyatin ndawal ay xale laa ximaasin yu xoos biir maanaam yu xiif bam nuyoo mbooloo mi ne leen xam ngeen ne jaamu yàlla yi li ci gën mooy nit ku nekk ci njàqare nga génne ko ci buum bi ci bi ci gën dëgër mooy dimbale ko am aajo maa ngi gën ci ki ma wàccee seen barab bi daal di dogal ci man ma di leen ñaan kuñ dàqee laa ci barab bu sori maanaam barab bu sori laa jóge ay ndaw yu xiif ñoo ma xebal ci yéen maanaam dama ay doom yoo xam ne ñoo xiif lool fu ma jógee sori lool faal fi jamaati ndax am na ci mbooloo mi man ka xam ne yëf sa u dana dana dalal an naa ci ñun xumayal majaati danga teg xiif ndax am na ci mbooloo koo xam ne dana fexe ba suñ xiif gi daal di dagg fa qaaloo ñu ne fa qaaloo ñu wax la ñu ne yaa haza yow kii innaka naka yow xadarta teew nga baadal ishaa yi gannaaw gaye wala walam yabqa desut illa fadalatul achaa yi lu mooy ndesitu reer ba bañ reere ba par de la sa desoon rek moo fi nekk ndax danga yéex a ñëw fayn kunta nam nekk nga xan wa andi aju doylu bihaa ci ndeset yooyu fa maa tajidu doo fekk fii naa ñun manu an aji tere su fekkee bëgg nga desitu reer yooyu de kenn du ko aaye fa qaal mu daal di wax ne inna axa shadaidi naka mbokkam tattat ya maanaam ku am jafe-jafe yu tat la yaqanawu dana doylu bi lufadatil mawaidi ci sànnitu ndab ya nit ku am jafe-jafe ñam yi nga xam ne dañ ko war a tuuri sa sun ba boo ko joxee mu lekk ko wa nufadatil mazawidi ak fëggitu mbuusi yóbbal ya mbuusi yóbbal ya buñ ko génnee la ci des ci fëggit maanaam la ci la la cay waddee dégg nga xam nga loolu fajul dara borom aajo bu ko gisee dana ko jël dana ko jël ndax moom ñàkk rek lay bañ maanaam li mu leen bëgg wax mooy moom lu am baax na fa amara mu digal kullun képp minhum ci sang yooyu abdahu jaamam an yuzawidahu mu yóbbulul ko maa indahu la nekk fu moom fa ajabahu mu yëm ko asunu njëkk ga wa shakara mu sant alayhi ci njëkk ga wa jalasa mu toog yarqubu di fuglu maanaam di xaar maa la nga xam ne yoxmalu danañ ko yenu ilayhi jëm ci moom su ko defee gaañooñu kenn ku nekk yónni jaamam ba da ko demal la nekk nga ko ko jox ko ko muy yóbbalam jëf jooj nag daal di ko xéem mu sant ko di xaar nag lañ ko war a andil wa jalasa mu toog yarqubu di fuglu maa yoxmalu la nga xam ne danañ ko yenu ilayhi ci moom usub naa ñu dellu nax nu ñun ilastisaarati mulaxil adabi jëm ci génne way xorami xam-xamu adab wa uyunihi ak ay tànneefam wa sinbaati maini ak balalu ay sewndeem min ci ay bëtam ñu ni ñu commencé di génne xam-xami adab ak la ci gën a rafet bu doon ndox la nga ne ñi ngay génne ndox ma ci bën bën yi war a jaar maanaam ñi ngi génne xam bi ci ñooñ xam-xam ba ilaan jun naa bañ wëndeelu fii maa ci li nga xam ne laa yastaxiru du soppeeku bil inikaasi si safaane ko bil inikaasi si safaane ko te xawli ka ni ki sa bu kaasin aji sotti kaas maanaam ñu dem ba toll ci ne léegi kenn ku nekk na indi baat boo xam ne boo commencé ca ndeyjoor jàng mu dem nga commencé ci mooy jàng mu dem baat boo xam ni daal foo commencé jàng rek mu baax saaki bu kaasin boo commencé si saaki da ngay am saaki bu kaasin boo commencé sin gu mujj googu saaki bu kaasin ngay am ngay am bi boo commencé ci cat goo commencé rek man koo jàng te même li nga jàng boo commencé ci cat ak ndeyjoor gi loolu ngay jàng boo commencé cat ak càmmooy bi saaki bu kaas gis nga siin la alif kaaf ba kaaf alif siin boo commencé foo commencé jàng lu mel noon nag lañ bëgg a andi foofu fatadaay naa ñu wootante ilaa nastantija ñu génnee law ñeel ko afkaara xalaat yi wanaftari a ñu bëtt minu ci moom al afkaara jànq yi maanaam ñu génn ci wax yoo xam ni jëlewuñ ko fenn wax ju bees la ñoo ko njëkk sos alaan yan zema ci kaw mu nose albaadi wu aji commencé salaasa jumaanaati ñetti tëmb jumaanatun moy xaalis boo xam ne dañ koy tëgg ba mel ni wuri suduru loolu mooy jumaanat ku njëkk dafa ñetti tëmb fi xid yi ci caqam ba su may tëddar su ma tëddar dara ju topp mu taxañu ziyaadaatu ndollal la min baadi yi ci gannaawam fa yu rabbi mu ñeenteel zu may mën ci borom ak day jooram fii nazmi ci wayam wa yusabbihu mu juróom-ñaareel saaxibu may sërati borom càmmooy gaala rax mi ànd ak toroxtaaneem qaala wal araayu nettalekat bi wa kun naa nekkoon nañ xadim tazam naa di nosewu iddata asaabi al kaaf këfi <laughs> lii mu Mm, baaraam yi tënk maanaam juróomi nit lañu ndax baaraam yi juróom la su ko defee dañ ne kii njëkk a commencé ñett lay def ñetti baat lay indi ki ñaareel ki indi ñeenti baat ku ñetteel ki indi juróomi baat ku ñeenteel ki indi juróom benn baat ku mujj ka nekk ca càmmooy ga nag indi juróom-ñaari baat juróom nit la yoon ndeyjoor lañ commencé kon ku mujj ki nekk ci ci côté càmmooy ba mooy juróomeel bi moom mooy juróom-ñaari baat noonu lañ ko diggante woon wata àllaf naa ñu tàppewu maanaam ñu nekk benn dajaloo ulfata asaabil kaf kaaf yi comme miinanteeg ñooñ xuntu ba asaabul kaaf yi seen xis luñ xam la ci alquran ay ndaw lañ yoo xam ni benn lañ woon innahum fidyatun amanu bi rabbihim wa zidnaahum hudan nee na foofu dara mu commencé li azami mexnati ngir màgg ak sama nattu saaxibu may mënati ka nekkee sama ndeyjoor xaaris mooy wax mu ne man maa nekkee ci càmmooja ka nekkee sama ndeyjoor commencé kon moom moo war a andi juróom moom xaaris waqaala mu wax ka nekk sama ndaje ne lum yeddal axan mbokk moo xam ne man la yokkat na nga mbokk mu dem ba yokkat ci jàppalante yow kooku yedd ko foo commencé jàng lum axan man la boo commencé ci man la googu la naan lum axan man la waqaala mu wax mu yaa mu yaa minhu ka nekkee ci ndeyjooram ne kabbir màggalal rajaa ajiri rabbika yaakaarab sa tiyaabab sa borom tiyaaba sa borom yaakaar sa tiyaaba sa borom nanga ko màggal boo commencé foo commencé rek am kabbir rajaa rabbika wa qaala mu wax allazi ki nga xam ne yëlii dina ko méng ko moo war andi ñeent ne man yarubbu ku defar njëkk isa barra bu baaxe yan moo dana dolleeku ku defar ak njëkk su njëkk la matee rek mbiram daal di yokk kooku am na ñeenti baat yoo xam ne foo commencé jàng man yarubbu iza barra yan mu foo commencé jàng loolu wa qaala mu wal kaw na sakkit noppilool lool kulla man nam ma képp ku rambaajee lakka ñeel la takis da nga ñëw maanaam da nga nekk ko am xel ku ñëw jëla rambaajee di la jaxase diggante di jaxas sa diggante nit ñi da nga fexe ba noppi loo ko ba dum la ba du la dara ah kooku moo andi juróom benn baat léegi nag xaaris moo ci mujj war andi juróom ñaar waaf dat mu fël ak nawbatu aye gi ilayee jëm ci man moom xaaris mooy wax waxa temps yéen a taràññeeku na nasmu simte nose ràng ga asubaayi bi juróom-ñaar alaye ci man falam yësal dañut fikri sama xalaat yasuuxu di tëgg wa yaksiru te muy damm wa yusri muy koomal wa yusiru te muy ñàkk maa ngi xalaat daal di sànni ndax xalaat yi baaxut léegi-léegi mu andi dara ba mel ni maa ngi waaj yeggal léegi-léegi ma gis ne ndeke xawma benn baat bu mu andi bu fii dimni zalika ci biir kalaat boobu astatimu maa ngi sàkkoo leelaxu fala ajiru aw ma man yutimu ku ma leyal maa ngi bëgg ku ma dimbale waaye gaa yi gaa lott nañ kenn mënu ma ci dimbale kon ñoom mënuñu andi juróom-ñaari baat ilaan rakk la jëm ba dal annasiimu ngelawu neme xema nasiim dégg nga ngelaw lu sedd rekk maanaam la bëgg wax dem nañ ba nit ñi noppi waxasaasa mu leer ak taslimu jébbalu ga mu leer na kat gaa yi kat ku nekk léegi jébbalu nga ñeme woo andi fa qultu moo asaabi ñeen samay àndoor لو حد ربوتي وان السروجي كجوك سروجي تموي ابو زيد هذا المقام بلا تهاون الشفاء كن مسافرة ودا اجان قرجو المقام بأجته من الان والله جو تابيبك ابو زيد السروجي تيوان كرن مسافرة جان فقالوا لو نزل البواتيون هذه جو تابيب اياس انت اياس لامسك كن مجابو ala yaasin ci naagu ñu ne ko waaye Iyaas sax bu teewoon jotaay bi dana naagu du mën a andi juróom-ñaari baat yooyu yu mel noonu nga xam ne foo commencé jàng wa jaal naa ñu commencé nu fii du di xuus fi istisaabiha ci jëfeel ko mu ne ñu commencé di jëfeel loolu wa istixlaaqi baabiha ak tëj buntam maanaam waree ne loolu kenn mënu ko وذلك الزور تأجي زيارة جوجو دهنك وكي أنه ولا نيارة ولا مبولا يب دهنك وح زورو المعتري باجي قارن يلحظنا مني جندكو لحظة المصدريكم جندكو أجي قيب مني قول قوب قول كني قيب ويؤلف من يدجل الدرر ورس دري ونحن تنين لا ندري خمج من يدجل باديا تنين خمج دارا فلما عصر بم يري daa iftidaaxina si suñu gàcce wu maanaam suñuy lot wanu duubi dax daaxina ak niis ak suñuy temp-temp dax daa mooy ndox moo xam ne bëriwut ba mu gisee ñun lu ñu yore ci xam-xam bëriwut lot nañ ci indi juróom-ñaari baat yoo xam ne boo commencé ndeyjoor jàng boo commencé càmmoy jàng xaala ci la wax ne yaa qawmi yéen nit ñi inna min al anaa naka bokk na ci coono al azim bi aji mag istilaadan aqimi jurloo kuf jërmel mooy ku mënul jur wala ci choix ak sàkkoo saafara wu bis saqimi ci aji feebar docteur bi lay faj moo la gën a feebar xam nga ne loolu mënul nekk waaye fekk jigéen ju jërmel nga leen a jur loolu it mënul nekk wa fawqa kulli zi ilmi nekk na si bépp borom xam-xam ali mun ko ko gën a xam su ma aqbala topp mu jublu ali ci man wa qaala mu ne saanu bu danaa wuutu manaa bakka sa wuutuwaay maanaam danaa taxaw sa place xaalis mu ne waa ji jublu mu ne danaa la am place waa fii ka danaa la fegal maanaa bakka la la jot mooy sa morom yëpp andi yow mënu andi loolu danaa la ci dindi. feeñ si te boo bëggee an tam sura wisar maanaam nga wax wax joo xam ne du way wala taasura te doo fakkastal maanaam doo jaxase fa qul waxal mu xaatiban daaji li liman ñeel koo xam ne zamma ŋàññi na al buxla nay wa aksara tam bëril alance la yedd ne ko lu zuweedul bi kulli mu ammalin ci képp ku aji mbébét isa lamma nga xam ne bu dajalee wa malakatam moom bazara joxe na ko na nga weedu ci koo xam ne bu dajalee ba am dafay joxe gis nga juróom-ñaari baata ngoo wayen ahbabta mu ne ko boo bëggee an tanzima nga nose nga way faqul waxal lillazi ñeel ki nga xam ne mu danga ko màggal ne ko us dimbaleel maanaam joxeel armalan ku fëggule armal mooy ku fëggule ñàkk isa ara ndem xaaral na waraan nga isal mar undem as cam asaa ñaawal na yow fexe ba bul ñaawal as nit na nga dimbale axaa na borom yëkkati kuk daraja abin na nga soril ixaa an mbokkoo goo xam ne dan na saa tilimal na borom daraja yu yëkkatiku na nga ko yëkkati as nit na nga yëkkati laay bëgg a wax axaa na baaxatin borom yëkkati kuk daraja ku kawe na ko dimbale na ko yëkkati waaye mbokkoo goo xam ne daf lay tilimal na ko sori uslu nanga nga miis maanaam na dëddu janaaba xaashimin wàlli aji tooñ mu shaaxibin ki aji jëqi xay in jala saanem toog na koo xam ne tooñkat la te fu mu toog indi fa ay kooku na nga ko sori dëdd ko usru na nga nekk sang isa xabba nem upp na mira werante yow bul ci bokk war mi na nga sànni bii ci werante ga isa rasa nem saxan bu demee ba werante gi sax mel ni dafa bëgg a jéggi doyoo na nga fexe ba mu dakk sax yow uskun dalal taxaw wa da dëgër na dal ngir nga dëgër fa asa yusin fu amaana mu dimbale la waxtun waxtu woo xam ne nekk saa jàllar bi ku na dégg nga jamono dafay soppeeku amaana mu changé ba mbir yi baax ci yow kon na nga daal rek xaala mu ne falama gis nga baat yëpp bayt yi yëpp foo commencé jàng foo boo commencé ci commencement bayti bi jàng boo commencé ci mujj bayti bi même li nga jàng boo commencé ci commencement bi moom ngay jàng boo commencé ci mujj ko xaala mu ne faramaa saxarana ñu jabaree bi ayaat yi ci ay kawteefam wa xasaranaa mu lottulooñu bi bon di xaayaat yi ci sori ay doyturuwaayam maanaam mbiram xam-xam bu sori bi tax na ñu lottu pour jot ko madaxnaahu ci lañ ko tagg atastanfa bam xàcculu bam ne doy na wa manaxnaahu ñu may ko ilaan istakfa bam feglu maanaam bam ne doy na istakfa mooy xaala kafaani wax na doy na su ma chamara topp mu wag siyaabuhu yëreem wa zafara mu gàddu jiraabuhu mbuusam wana xadama buur yuñ siru di sadd way di ñu tagg maanaam lillahi kawteef ñeel na yàlla darru asaabatin jox ak soowu mbooloo moo xam ne suduqil maqaar yi ñu dëggu ay wax lañ maqaawila ay sang lañ jëmu miqwal dañu wax suduq mooy jëmu saadiq dañuy wax suduqu ak sudqu sudqu nga sukkoon daal gi ak nga dàmm ko maanaam déedéet maa ngi wax ki nga sa dàmm saat gi sukkoon daal gi muy sudqu da ngay sukko dàmm saat gi sukkoon daal gi mooy sudqul maqaali sudqu mooy jamoo saadiq ñu dëgg ay wax lañ maqaabiran ay sang lañ faaqu kawe nañ alanaama mbindeef fadaa ilan ci ay ngëneel jëmu fadila ma suuratan yuñ toxal wa fawaadila jëmu faadila ak ay may seeni ngëneel yen toxalee ci ñoom kawe na mbindeef yëpp waaye seeni may yañ jëlee ci ñoom kawe na mbindeef yëpp xaawatum ñoom fa wajëttu ma fekk sax baana sax baanu waayil baaqilan muri baaqil ladayhim fa ñoom ñooñu de wax na ak ñoom waaye dama ma wax ñoom dafa fekk sax baanu waayil ma ñépp di yem ci fasaa mu mel ni mu mel ni baaxil mi nga xam ne ñëpp koy ay bëree ak lottu tële ci wax baaxil ku gàtt xel loonu wax ne dafa jënd kéwél fukki dërëm ak ñaar la ko jëndee ñu ne ko ñaata nga jëndee sa kéwél gi. fukki dërëm ak benn la ko jëndee ñu ne ko ñaata nga jëndee sa kéwél gi <laughs> mu ubbi gémmañ gi génne làmmañ ba tàllal ñaari loxo yi pour war ne fukk benn la ñaari loxo yi xam nga juróom la làmmañ ba benn la mu bëgg wax ne fukk benn la kéwél gi daal dina ci daw ñépp di misaalee ci moom gàtt xel ak lott ci wax amma sax baan moom eh, ku fasaa la xoon ba kuy misaal fasaa rek misaalee ko ci ñoom mu ne mbooloo mii daal buñ taxawee sax baan taxaw dafay mel ni sax baan waa il la foofu waaw dafay mel ni sax baan baaxil la sax baan waa il dafay lott bu mel ni baaxil waxalaltu wàcc fiim ci ñoom saa ilan di aji ñaan fa laqiitu ma dajeeg juudan tabe saa ilan bi aji yool aqsamtu gëñ naa law kaana bu nekkoon alkiraamu way teddi xayan di dund kaanoo kon kay ñu nekk waa bi leen di waame gëm naa ne way teddi xayan di taw laa bëgg a wax aqsamtu gëñ naa law kaana bu nekkoon alkiraamu way teddi xayan di taw la kon ñoom ñu nekk waa bi di waame ba su fekkoon nit ñu tedd ñi ay taw lañ xamal ne ñoom ñooy waame ba maanaam ñooy taw yi gën a ndax ñoo gën a tabe ñëpp topp mu jéegu dégg nga xidarum xëy ni comme dégg nga lu toll ni ñaari xeet wa aada mu dellu mustaizan di aji muslu minal xëy ci alkande mu dox lu ni ñaari xeej dégg nga daal di dellu di muslu ci alkande waxaala mu ne yaa izza man yente danga ki nga xam ne àddima ñàkk na al aala ñooñ wa kën zaman ak nàmbal ki nga xam ne suliba rekk nañ ko suliba rekkil nañ ko al maala alal yéen ñi nga xam ne ñu amul mbokk yéenay mbokkam ñi ñàkk seen alal yéenay ko amul mbokk rek bu ñëwee ci yéen tedd ndax yéenay mbokk yu koy teral ku amul alal bu ñëwee ci yéen am na alal ndax yéenay joxekat yi innal xaasiqa naka guddi gi xat waqaba dugg na guddi gi dugg na wala boog lëndëmal na ñaari baax na wajal mahajjati anam ak yoon wi xadin taqaba muur na maanaam lëndëm na la la bëgg a wax bu bay nii nekk na sama diggante bu bay na kinni ak sama diggante kër lay lun guddi daami sun gi aji kukk mooy gu tat lëndëm wa tariqun ak yoon taami sun bi aji fay maanaam boo xam ne xamoo fan ngay jaar lim leen bëgg wax mooy dafa lëndëm pour ma dem sama kër yoon wi dana jafe lool faal min mis baaxi ndax am na làmp يؤمنني بما يولو على إسارة فكستلو ويبين ما يلير لي نجم على إسارة جي خرجة نحن لام بوا خم دنا كم نجيت بدو ما فكستلو شيء عندي وعي ما خم فما يجار قال من فلما جي بن عندي بالملتمة تلين ساكو ما لام بوا بن كو عندي وجل لا مفعين الوجوه كرمي دو القبس اللي رك تك تك بو من عندي لام بريك Euh, lamp takk takk lamp daal di leeral kanam yëpp raaytu ci laa gis saaxiba saydina suñ borom rëbb boobu woo moom abu zeydina mooy suñu abu zeyd bi ba lamp yi tàkkee rek laa xool kanam ga nekk abu zeyd la moo doon indi kimtaan yooyu fa qultu ma wax li asaabi ñeel samay àndoor ne haza alladi kii mooy ki nga xam ne achartu junjoon naa ilaa annahu ne moom idaa nataqa bu tuddee asaaba mu jubal wa istumtira buñ ko tawloo saaba mu sotti fa at law ñu yuqoolu naxwahu jëm ci moom ala anaaqa doq ya wa axdaqu ñu warale bii ci moom ala axdaaqa nagu bët ya wa saaluhu ñu laaj ko an yusaamiruhum mu ngoom laan ak ñoom maanaam mu waxtaan ak ñoom laylatuhu ci guddeem ala an yajburu ci kaw ñu faj aylatuhu ak ñàkkam ba leen xaaris waxee ne dëgg-dëgg abu zeydi mi mu doon wax naan bu teewee dana andi kiimaan moo nekk ni ñëpp kuy xool commencé koo xool bari yëpp di ko euh, xool ñu ne ko dañoo bëgg nag nga ngoom laan ak ñun guddi gi waxtaan ak ñun ñun guddi gi ñu fajal la sa ñàkk gi fa abu zeydi ne xubban dana mu bëgg lima ma ahbabtum ñeel la ngeen bëgg yéen de la ngeen bëgg bëgg naa ko dégg nga warax warox ban maa ngi yaatal bikum ci yéen isa raxabtum dem yaatal ngeen ma bu ngeen ma waxee marxaban man ma wax leen marxaban maanaam bëgg naa waxtaan ak yéen ci guddi gi bu ngeen ko nangoo nangu naa xeyra anni waaye ne man xasattukum jublu naa leen waat faali te samay doom te dawwaru na ñu ngi yuuxu minal juuci ngir xiif waaye daxu na ñuy xool yi ñeel ma bi washkir rujuuci ci gaaw a dellu ba may ñëw ci yéen sama doom yaa ngi yuuxu ngir xiif di ma ñaan ma gaaw a dellu si waat ci ñoom waaye nis taraasuuni ndem yéex nañ maa gis xaamaruhum dana jaxasoog ñoom ak taychu tooy mooy xel mu dem walam yes fu du sell lahum ñeel leen al ayshu dund daa amuñ lenn luñ lekk te ña ngay sonn lool mu ne leen sama doom yi daal dañoo xiif ña ngay yooxu yuuxu rek yàkkam ti ma ñëw lool suñ ma yéexee gis damay ragal seen xel ma dem sax ndax seen dund ba neexut fa daxu ni baleen ma li azhaba ngir ma dem fa asudda ma mëdd max masatum seen ak xiif wow sixa ma daal di dindi ma daal di dindi xussatum seen ak fot baleen ma léegi ma dem lexel leen bañ suur dindi seen xiif fot gi nga xam ne nii moo nekkoon seen purax maanaam naqar wañ nekkee woon ma dindi ko su ma an topp ma jàll bi ko jëm ci yéen alal asari ci jeexit bi mutaahiban daaji préparé li samari ñeel ngomlaan su ma demee rek damay ñëwaat toppaat yoon wi rek maanaam ñëwaat ak yéen pare pour ngomlaan ak yéen waxtaan a yéen guddi gi yëpp ila saxari ba njël mooy ba fajar kon dig na leen ñu bàyyi ko mu dem ci doomam yi lexal leen daal di ñëwaat fa naa ñu wax li ahadil xilmatik ñeel kenn ca xale ya ne ittabiu topp ko ilaa fi ati jëm ci mbooloom li yakuna ngir mu nekk asran di gën a gaaw li fay ati ñeel ak delloom xale yi na ko ewe gaawal topp ko ba ci mbooloom su ko defee ndax mu gën a gaaw a mën a dellu ci waat ndax boo ànd ak moom ci lay dellu gi di gën a gaaw fan talaxa mu booy moom xale ba maa mu ak moom mu tabinan di aji bokk ca poqtaanam jiraabuhu mbuusam aw mu xasisan di aji soññi yaabuhu ak delluse sem xale bi daal ko bokkal mbuus mi ngir mu gaaw a dellu ak moom waaye faabta mu yéex moom abu zeydin but an yéex goo xam ne jaawasa jéggi na xaddahu doyom su ma mu dellu alxulaamu xale bi wax doo moom dong mu yéex a ñëwaat bam jégg doyoo ñu xool gis na xale bi moom rek sax moo fa ñëw abu zeydi ñëwaatut fa qul naa ñu wax loo ñeel ko maa nekk lu nekk fa yow mel xadis ci waxtaan leen xabiis yi ko ci ku bon kooku ñu ne ko loo jëlee ci waaju bon jooju maanaam ku bon jikko fa qaala mu ne axasani jàpp na ma fii turuqin ci ay yoon mutibatin yu ay sonale wasubulin ak ay yoon mutashaibatin aji cël yoon yu tàqali yoo xam ni doo xam sax fooy jaar loolu lépp pour nëbb këram mataaf day naa bañ yegg ilaa duwayratin ci ab askër xaribatin bi aji ràpp faqul naa ñu waxaa huna fii la nekk munaaxi sama yeesuwaay maanaam sama saxuwaay wakru afraaxi ak tàgg ak samay cuuj maanaam kër samay samay doom seen kër fii la fii mooy sama saxwaay samay doom fii lañ dëkk su ma su mastaftaxa topp mu sàkkoo ubbi baabahu buntam mu mastaftaxa mu sàkkoo ubbilu baabahu buntam mu ne aywa nañ ko ubbil bunt bi bañ koo ko ubbilee waxtala ja mu këf min nii ci man jiraabuhu mbuusam mu ñoddi mbuus ga wa qaal mu ne ma la amri maa ngi génn sama dund laqad xafafta oyofal nga am man ndax yaa ma téyel sama mbuus gi bañ yegg si wastawjabta waral nga alxusna ak njëkk maanaam daal war na min ni tukkee ci man maanaam war naa njek fay njëkk kon faaka jàppal nasihatan laay biir yé moom min nafa isin nasaihi muy bokk si laay biir yi gën a sell wa maxaarisil masaalihi muy bokk ci jëmbatuwa jëmbatuwaayi maslaha yi boo bëggee jëmbat maslaha lu la amal njëriñ jëlal laay biir yi nga jëfee ko dana la jural maslaha laay biir yu gën a seer ci biir ci la bokk loolu laa lay faye njekk ci li nga ma teel sama mbuus gi waa incha allah musadduwaay xale bi mooy nettali lim dund ak Abu Zeydi Abu Zeydi wayal ko nag isa ma xawayta boo làqee janaa naxlatin meññetam tàndarma fala taqraban ha bul ko jegeeti ilaa qaabilin ba déwén boo demee ci tàndarma am fa am meññet bul fa dellowaat fekk déwén jotut maanaam bu la nit jariñee balaa ngaa delluwaat ci moom di sàkkoo ci ndimbal na nga xaar ba mu yàgg boo dem yi bëree rek bu yàggee nga ñàkk la nga amoon way maa saqatta boo rotee ala bay darin ci dagga mooy barab yi ñuy dëbbee pepp yi faxaw sil na nga feesal sorok rokk mu ne sun ca gubu dugub ba alxaasiri ba aji am soo demee ci ag dagg fexeel sa biir bi fees tepp ca dugub ba maanaam soo demee ci barab boo xam ni aajo yi dañ fay fajoo ñaareel fexeel sa aajo faju bu baax a baax wala talbasan na bul sax isa ma laqatta boo foree fatan shabba nga daal di aju fii kifatil xaabili ci fii teg aji rëbb ga boo foree ba pare bul fa sax naawal demal boo foree ba pare des fa nag kala doon rëbb dana la mën a jàpp maanaam boo xamee ak may ba pare demal nag bàyyi foofu bàyyi barab boobu te jëriñoo sa may googu ndax boo fa toogee mën nañ laa fit ndax may gi mën naa am lu nekk ci gannaawam wala tuuxi lan bul xóotal ida ma sabaxta boo feexee fa inna salaamata naka jàmm fi saaxili man ca tefes ba mu ne booy fee bul xóotal maanaam booy dugg ci dara bul ci diggu dugg bu xóot ndax jàmm ma ci tefes ba lu nekk rek na nga ci dugg dugg gu yem ndax doo ci am jafe-jafe waxaatim na nga bi haati ci andi wa jaawib na nga tontuwante bi sawfa ci amaana wa bix na nga jaaye aajileen aji teew min ka bu tukkee ci yow wala wa aji ñëw min ka bu tukkee ci yow bi aajili ci aji teew yow del wax andi rek waaye bul joxe del dige rek naan am def nangam danaa def nangam waaye bul def lu ñëw rek nga génne bu lu teew ñëwee ak luy dikk luy dikk na nga ko jëndee lu teew maanaam yow jëral lu teew rek waaye lu ñu naan suba moom wala gannaaw suba ba ko li nga mën a am tey daal jël ko ak nu mën a toll wala tuksiran na bul bëril ala saaxibin ci àndandoor fa maamul la yoqut loowuñ xattun mukk si wal waasili lu kuy bëril aji kuy bëril jokkoo dégg nga nee na ko bul bëril looy dikkal sa àndandoor boobu ndax boo bëree looy jokkoog nit ñi bu yàggee yokkat dal ci am kon booy ziyaare na nga ziyaare lu yem waaye boo bëree loo jokkoo ak nit ñi rek ñu yokkat loola day dem ba mujj dootuñ la tegati fenn suma xaala mu ne ko haa na nga ko denc fi taamóori ka sa xol waxta di nga roy bihaa ci moom fi umóori ka sa mbir wa baadir nga gaawee ilaa sax bi saxbika jëm ci àndandoor fii kilaati rabbika ànd ak wëttug sa borom maanaam nekk ci wëttug sa borom. demal sa àndoor yàlla na yàlla wattu maanaam fa isa balaxtum boo leen jotee fa ablixum nag leen jottali taxiyati sama nuyoo wat lu nga jàng alayhim ci ñoom wasiyati sama ndénkaane waxul waxal lahum ñeen leen an nii fa man ne inna sahara naka foog fil xuraafaati ci ay caaxaan lamin azamil afaati muy bokk ci gàkk-gàkk yi gën a màgg boo nga nuyul ma leen jàngal leen sama dénkaane bii mën a dénk soo baree nga wax leen ñàkk nelaw guddi gi nekk ci ay caaxaan ko gàkk gàkk bu mag la man duma ko def wala su nekk ma ulxii di neenal ixtiraas yi wëttu sama bopp wëttu gi may wëttu sama bopp ak sama der duma ko sàggane wala ajlibu duma bijji alxawasa tooy ilaa raas yi jëm sama bopp man duma nekk ci yu gàtt xel yooyu xoole ba guddi gi jeex ci ay caaxaan rek loolu ne na wax leen du ma ko def qaala wan araawi aji nettali bi falma waqaf naa bañ taxawee ala faxwa chi'rihi ci dëgg-dëgg wayam wa naa ñu yër ala nukrihi ci ak mm, mbonam wa makrihi ak pexem talaawum naa ci lañ yeddante ala tarki ci bàyyi bañ gisee mburam yu lëndëm yooyu ak pexem yooyu ku nekk yedd sa morom naan lu tax nga bàyyi ko wala ixtiraara ak xoru bi if kii ci ay naram ku nekk yaa ngi yedd ci morom lu tax nga gëm naram yooyu ba bàyyi ko mu dem su ma tafaraq naa topp ñu teqali ko bi wujuhin ci ay kanam baasiratin yi aji njëkk wa safqatin ak ak tàccu xaasiratin bi aji perte wasabxatu maanaam njaay rek la ci bëgg wax xaasiratin bi aji perte maanaam njaay moo xam ne dañ la nax su ko defee kenn ku nekk daal di dem ñu tàqali ko ku nekk kanam a nga njëkk bu doon dafay jaay nga ne joxe marchandise bi dañ koo nax <laughs> ndax kenn ku nekk ci ñoom Abu Zeydin nax na la foofu la maqaam boobu yem إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله علي توكلت وإلي أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته